Radio Senegal, Cien Nacional. Muy bien, director Jorge Villembo. ci taw leen tool wi jaaro wi jaaro xalam googu ngeen dégg mu ànd ak way yi ñi leen koy defal alaaji sàmba jabale sàmm alaaji moor joor sekk alaaji sàmba sekk ak ali leen waxtaanu cosaan wi nag alaaji kaani sàmb alaaji ma kura mbuub asan ma roqoyee sàmb ci soppali ko wi nag ndax rëy gi mu rëy tax na am ay invité yu mag teewe nañ jotaay bi alaaji Mansour Mbay alaaji Maada Seck ñu ngi ci jotaay bi eh, ki la nekkal ci machine jarbaat Abdoul Majib Gaye non ngi di nuyu di leen delloo si seen waxtaan yi nag seen national yi defal ngeen di ko déglu dimanche jot ci waxtu bi ñu di ko wax Sénégal démb xam ngeen ni bi ñu nu mujjee dégg dimanche ñu génne ngi woon ci Kajoor di wax sëti lamal de cappi njóogu yi ni mu barkeele ak ni mu njërite tey nag danoo ñëw ci ku rëy ku yàlla rëyal ci fànn yépp ci juddu ak jukko ak xam-xam ak daraja ak wërsëg ak lépp li yàlla yi jox doomu aadama lu tax koo kawe yàlla def na ko ci moom kooku mooy kan ah. mooy sunu sang bu baax bu ñu wax Serigne Cheikh Amadou Mbacké gën a siiw ci Gaynde Fatma musu noo waxtaan wenn waxtaan ba mu jeex te tudd nu ko ndax ku nu tudd mbokkam tey nag dañu ko defal waxtaan spécial boo xam ni moom rek a ko moom mboolem ñi ñuy déglu nag xam nañu ni Serigne Cheikh Mbacke li mu dund jëf na ci loo xam ni kenn mënu ko wax ci weer sax rawatina waxtu wu tool waaye nag nu bokk rek marché yi ñun ñëpp wane ci sunu yéene wane ci it sunu wareef ndax jotoon na ko moom ci lépp ji nañu ko it kon nag tey sëriñ seex Amadou Mbacke Gaynde Fatma la ñuy waxtaan sëriñ Cheikh nag ni mu juddoo ci réew mi mooy ni ma waxee léegi li nga xam ne àddala ci réew mi yu fi yàgg te xam ne fa mu sosoo ñu di ko wax garmi mu am ci Sénégal am ci Kajoor ak Bawol ak Siin ak Saalum mais ni garmi yi fi am yépp sëriñ Cheikh sëttu na ci moom ci boppam nag garmik gi liggéey la waye mel yi nga xamni dañu dañoo doon na falu ci réew mi mel mu ca ne mel juddu ci mba teeñ mba buur ba jolof mbaa barak ci walu mba bar saalum mba bursin mel yoy yep ci sëriñ Cheikh satula ci suñu ko waxtu maye yep dal leen wax mel mu ne na mu ci duggé <coughs> waye dal ma dëkk euh, dugg ci euh, sëñ Mbacke Maala mi nga xamni ko yalla barkel la waxon nako ci le setu sëñ Mbàkke Maaram jigéen ñi mu dëkkoo dafa dëkkoo jigéen ñu Farimata Sekk ci cekkeen am Ceerno Farimata ak Ceerno Farimata mu jël jigéen ñi wax soxna Buso ca Mbuso be am ci Amadu soxna Buso ak Sayir soxna Buso mu jël ku ñuy wax ay sa kan ca am ca Mambalaay sa Mambalaay sa moomu ko di ñu sali kan am señ Mbàkke bu ñu xali mo moom sali xali mo anta sali fam gën ci wax soxna jaaru bu ak astuwaale mu mbee daanu ci neub gonjo benda kamara anta Touré pan pan joor paan paan mbajaan mesengaan juuf do job benda njaay kumba malik paye bal balu dom dom sidang sidang dang dang sibul mandeng mënta sali am sa sëriñ bu mag Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul Xaadimu Rasuul sëriñ Tuubaa fam jigéen ñuy wax su xanaa mel te loo waaw su xanaa mel te loo moom xaalimaam moom amee te Jóob memberi sahar badu. Kali mami tam, njaga isi jee majunjum, Mamadou Ba xuja, moom sëñ kokki ma taalibe ma sëñ coon kokki. am te Cheikh Moustapha amirul mu'minina mi njëkk di xalifa Xaadimu Rasuul am te Cheikh Mamadou Aminata mi njëkk di xalifa borom Touba Cheikh Moustapha da ko jigéen di wax soxna waccit soxna Fatma moom waccit loo moom ma jaxate faalu assurance code numbe moom Madou Fatma sëy moom si raxo jokumba moom sëy ndaamaale sena ba am ca sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké gaynde Fatma mi may waxtaane ak su jigéen bu jox soxna Xadi ak Asu Mbacké mu tellement dem sëriñ Cheikh nag mi ngi gane àddina Touba ci 1913 mu demee ba toll ci dal jàngu bayam Cheikh Moustapha jox ko mbokk mu ñuy wax Maduma Taal alé Cheikh Bala waaw Cheikh moom aale lu alé khalibam mu bokk ak Aminata khalibam maam rek bay mu daaru ko alxuraan mu ko sëñ Mbàkke Madina ñoo dalloo mu jàngal alxuraan ba wattu mu seigne sëñ Madina mi nga xam ne ñoo bokk bàyyi ba noppi di mass tuti la ko magee ba ñu yeggalee seen alxuraan sëñ Touba indi len ci seen maam Xaadimu Rasuul ni ko ne day jangale ñu ba ñew yégal nañu seen alcorane ah ma do doon indi nak bëgg nga déglu len té ñaanal leen sëñ Touba ne ko tabarkàlla ne daal Cheikh jël qui va loxoom ci loxo ci boppam ni ko jàngal alxuraan ma dégg sëñ Cheikh di jàng beeg sur Luqmaan beeg si fanweeri ay ak ñett mu ne ko taxawal sëñ Cheikh ne tekk mu ne Cheikh Moustapha ay mu jàng fi mu toll na ñaata ay la ci alxuraan ci saar li mu ne mu ne ko fanweeri ayal ak ñett mu ne ko bu ko dundee kenn ko yilif booy boo def looy def bi sëñ si xamee fanweer ak ñett Cheikh Moustapha nelaw Cheikh Moustapha nag li mu def rëy na lool waaye dañuy génne sëñ seex ni mu ci génne suñu dellu see ci moom nag wax li mu liggéey ci gannaaw bi mu wutoo sëñ Bamba Cheikh Moustapha bi mu génnee àddina nag sëñ seex daal di ca seen yan mat ko sëkk loolu nag waaye jiitu loolu nag ki sëñ Moussa bëgg xam-xamam ak bëgg leen a ci yoon fekk na sóotu Luqmaan wax na lu bari ci ni ñuy yaare ndaw ak mu jëm ak na war a doxalee addunaam ak na nga war a gale na nga yàlla kon loolu la ko doon junj ca saaro waaye nag ba ñu jógee ci loola Cheikh Moussa dafa ne jox ku ñuy wax Madou Ngoné Dieng mu jàngal leen tàmbali leen jàngal xam-xam téere ndaw yi risaala ak ibnu asir ak téere ci top bu ñu jàngee téere yooyu bàggal mu ndi leen ci fóore du mag di ñu wax Cheikh Ahmad Dem nekk njaareem Cheikh Moustapha tey seen loxo yóbbu leen fa ah ñu nekk ak moom ba jàng fa biir mu ne nag naa leen yóbbu gànnaar Cheikh Moustapha yóbbu leen gànnaar moom sëñ Cheikh amadou Mbacké ak sëñ Mbacké Madina ak ku ñuy wax sëñ Diop lew na moom Abdoulaye Diop lew na ak Galo Mbay ak ku ñuy Abdou Rasoul jigal ñoo ñu andon dem gannaal soxna Fatma fanangaal kon kumba jana boob kumba jagañu ba nga ci ndaw daaru njaay pend sargaal jëng ko mu raas tey di tëgg boole ko maga neex ci jàmm njaay ma ku ja biram faat ma daw raas la yendoo njoojam njoojam yendoo daw bir ma yendoo yendoo naan sëñ bi faat ma caati bu dog ba ci ngiis moom ci muxuri ja faat bale ñaan jeng muxuri ja faat bale ñaan moom lañ jox saaxee soxna mbay ji mi ko ca mbay ñal kana ngaal gu moom ca gànkal ma ci tuuba ca mi ñal gañ ci kumbel ak soxna mbay muxuri ja gànkal jox ko waccit ma jaxate faalo moom ca faat ma waccit jox ko Mustafa Mbakke mul muminina ak sëriñ Mbàkke soxna loo wuy jaalo wuy jaalo joob sama ba leen Seex Musaa yóbboo jox leen naar bu ñuy wax Ahmadul Asan wala Deymaan la ko mën a jàngal bokk na ci ñëw ci gànnaar nee ñu ñu fa ay at am jenn jëmu jamono mu ànd ak ñoom indi ci cheikh amadou bamba asan waram ganna ma ci ni ko gone day man li ma xamal naa leen ko jeexal nañu téere yu bari de ba alim yu jeexal fànn yépp lañu mu ne na leen delloo ci sëñ amar dem mi nga xam ni dafay dëkk ak moom moom itam tey ñu rek mu di cheikh mu ko nay ca daara ja mm. sëñ Mbacke Madina mu yóbbu ko Madina kenn ku ci nekk rek daal di samp kër sëñ Cheikh ñu jox ko ji wax soxna Loo Jóob moom sëñ Mor Jandam moom ma Samba Gadd moom ma doon pend boy moom ma Samba euh, moom ma moom ma Samba Gacebo moom mu tànn bi Samba yi kokki mu ca sëñ Mbacke soxna lo ñu ko wuutu te place bi ak rakam ñuy wax Abdou Fatah legi kon sëñ Cheikh jangene ba ñew alim la ñu toog ab diir nag waxaal nañ ci ni kéro bu mu jàngee ba ñëw ci Cheikh Bamba wax ko loolu neenu dafa ko ne tàllal sa lamiñ mu tàllal bi mu jàng tibli ca ñu des na tuuti kàddu gu mu déggati xam ko ah nag dëgg la ndax sëñ Cheikh li mu daal làkk ak li mu daan bind kenn xamul fu mu ko jànge hmm. ko sëñ Tuubaa ko def ci moom waaye nag gannaaw jàngi ba ñëw samp na kër dëkkoon na soxna loo Jóob am sëñ Mbàkke Abdou Fatah tàmbali nag ab liggéeyam Cheikh Moussa nelaw na liggéeyam ndax Cheikh Moustapha jeexal na liggéey mu daal di nag cas nag yam ba waaye alaaji Mansour bala maa jox ko alaaji Kaani kàddu gi ndax ku tàmbali liggéey tey di kilifa di di toog ci xilaafa yan xalaat nga jëkk am ak yan nga liggéey ci lislaam kon alaaji Mansour mu bàyyi la foofu ci sëñ Cheikh bi mu bi Cheikh Moustapha nelawee te mosam bu kër yor xalaat yi toog lan lay jëkk xalaat lan moo jëkk di xalaat xalaatam foofu alaaji Mansour jërëjëf Assane ma roqee Kumba jàngaan mbaaxu sëriñ Cheikh soxlawul nu waxtaan ko Sénégal a ko xam bàyyi mu am bi mu Seydi Mouhamadou Moustapha Mbacke jógee 1945 Seydi Fadilou nekk fekk Seydi Bachir Cheikh Abdoul Ahad nekk fekk Cheikh Abdou Khadre Serigne Soybu ak Serigne Saliou mii toog ci xilaafa gi ak Serigne Murtada muy sët fexe ba turam ñëpp jéegu ko mu leen di tërbi ba ñoom ñëpp ñu ne ca dëgg-dëgg sët bi mat na sët kooku Cheikh Fatma kooku la ñuy waxtaane nag tey Cheikh Fatma Cheikh Fatma Cheikh Fatma asan ma roqee ku ma jàngaan wax na dëgg bi bàyyam jógee Seydi Mouhamadou Moustapha Mbacké moom la alaaji Abdoul Aziz seede barki démb bi ñu denc alaaji Habib ci guddi ga seede lu rëy la ne mu toogee ci xilaafa gi 1927 ca Xaadim Rasul wàcc liggéey am lu bari lu yëngu ci réew mi benn waaye ni ko moo Seydi Moustapha Mbacké yow mi doon ca dëgg-dëgg Xaadim Rasul lii di yëngu ca loolu yëpp lu ci nekk mën nga ko fexe ba dara jot ci yëngu ca loo wax tubaab bi mu def ko tee nga xeex ak ñooñu mun ko man duma xeex ak kenn man doole yàlla laa am doole yàlla ku kokoy Moustapha mbacke mo jur sene Cheikh Fall mi ni bëgg waxtaane nda jaani san gumba sa bay job Cheikh Fatma Cheikh Fatma Cheikh Fatma Cheikh Fatma Cheikh Fatma mo fay jebram Fatma daw ras la do job jojum yak do daw brima do fanan Tusamba Fatma ak sa tag mo buri jak jor Cheikh jor na joy Cheikh Fatma Cheikh Fatma 158 dañ la ci deug deug rew bi mënu de bukk te amul xam-xam ñun ko boo sëriñ Cheikh mo lay def ak fay jël xaalis bu xam ci deug deug da formé li nga bëgg mu ne aw ma ko waaye yàlla am ko ak Xaadim Rasul ak sambay Seydi Mouhamadou Moustapha Mbacke mu def lan mu ne Touba bëgg na fa école djourbel bëgg na fa école Kaolack bëgg na fa école Dakar bëgg na fa école Ngaye Mexe bëgg na fa école sëriñ Cheikh fat daal di wut 258 école nu fay jàng arab di fa jàng ci dëgg-dëgg français di fa jàng alxuraan sëriñ Cheikh Fatma loolu la jëkk def ni ci dëgg-dëgg bëgg naa réew mi am xam-xam école yooyu am trois cent cinquante deux classes xale yi nag ci dëgg-dëgg xale yu ndaw yi ku am nag sa doom léegi sa xel dem ci sëriñ Cheikh Fatma nga fa yóbbu sa doom ndax loolu doy na déedéet mu teg ñaari lycée ñaari lycée yooyu ca dëgg-dëgg am bii classe sëriñ Cheikh Fatma lycée yooyu nag mu bi Dakar mu samp ko Diourbel Assane ma roqee ku ma jàngaat daal di wut nag trois cent soixante-dix-huit professeur di leen fay rek ci alalu boppam ni nguur gi lu ngeen ma dimbalee ma jël de waaye lii daal sàmmoo naa ko ak Xaadimu Rasuul danaa ko def Cheikh Fatma Cheikh Fatma Cheikh Fatma Cheikh Fatma wut vingt cinq professeurs lycée yooyu am trois cent quatre-vingt-seize élèves moom école yooyu mu fexe ba am nu am deux mille sept cent neuf cent seize élèves à travers le Sénégal ñëpp di wax nag dañ dugg ci école Serigne Cheikh Fatma nag pour génn ñenn ñi génn notaire Assane ma roqoy ku ma jàngaat ñenn ñi jàngale ji ñenn ñi génn ay professeur ñenn ñi génn sax ay pilote avion loolu yëpp nag ma ngi ko def ci daraje Xaadimu Rasuul ak barke Baye Seydou Mouhamadou Moustapha Mbacké ko koy Serigne Cheikh Fatma Cheikh Fatma Mbàkke mi njëkk nekk xalifa xaadim rasul jëlee raay bi Jurbel yóbbu ko Touba fondement jumaa ji cheikh yu ku ci nekk mu samp la ni man soxlawu ma dara lu dul yàlla ak rasulullah ak roy sama baay xaadim rasul te dëgg-dëgg bi mu fi jógee sëriñ Cheikh Mbàkke loolu la def waaye taawam bi sëriñ Mbàkke soxna loo moom itam liggéeyu réeréerul liggéeyu sëriñ Moustapha Mbàkke réeréerul liggéeyu it te dëgg-dëgg bàyyi ba Cheikh Fatma Assane Roqee jërëjëf Alaaji Mansour Alaaji Kaani sëriñ Cheikh ni ma ko wax ci njëlbeen gi moo ci ne ab juddoom ci dafa daj mi kenn mënu ko wax ba mu jeex waaye kenn ku ne am nga ci wàll kon nag am na sunu mbokk mu ma sa wax ni sëriñ Seex kenn mënu koo jëw ndax ne moo ko jëwee buur balay dóor loolu taxoon mu wax ko jërëjëf Alaaji Asan taxan mu wax ko ubbee nga ko wax ji ubbeel nga ko wax ji sunu mbokk mu ñuy wax garja sàmb ma waxan loolu ndax booba dañoo nekk ci chef de canton colonialiste yi nekk fi ñi nga xam ne ñii ñoom lañu jële woon ci réew mi ñu di ay garmi kenn ku nekk sa doom remplacé la bax ci sepp sët toll ci jamono joju mu ne réew mii nu nek ci senegal fofu nek ba sori di bëgg jëw Cheikh bakke borom rew may jog dorlu la bo demé tay fouta nga taxaw di bëgg a jëw Cheikh bakke amoon maktar wan jëmm moo lay wax ne xanaa da nga xamul ne gànciiri sama ndey ak gànkal ma xuree jësee ndey demal teñ biram Fatma te Cheikh Mbacke itam Fatma gànkal ma xuree jë demal teñ biram Fatma umma gancire yaayam sidi ma ca Tuuba gancire yaayam yendoo do bir ma yendu fa yendoon naan yow almaami ba cam numba defa almaami Mamadu Rabi almaami Mamadu Jaawel almaami Mamadu Maat Samba almaami Mamadu Seynabo Amadou Yela Sator Faal ma kuli koot ngooy ndaw baay bi lingeeri moo jur alburi Seynabu see bi daan dax daxee garmi jërëjëf Samba ne bo jalle nak dem jolof da nga fay wax tek fa Sidi Gañ Siri moko man maktar Waan ño bok wenu Gañ Siri wa Gañ Siri ma xuree ja demal seigne Biram fat Cheikh mbake it Fatma Amadou ma xuree ja demal seigne Biram fat nga jall fekk fa bu na ma jigen ndaw moy da nga xamul ne buri Sayna bo ma jur te Sayna bo Amadou yalla sahar Fatma tesi ambake Fatma dem gankal la mu duma xuree ja ya, soxna May Fatma nga wacc ñewlu Louga bo duggé nar ñom rek fekk Cheikh Tako mom Tako jaw murgel jojo ko du fara degen fara ak biige fara seen mbokk lay ci kuma biige ak malikuma kuma biige ak Biram Fadim biige ñoña ma ngone sen bay ma ngone dama sen makodi kuma jari kudu kuma ngene kuma jari dama sen la sukabe borom pakha de nga ma jandala ka ma te ba ma ci bu ngura ma ma jari cheikh fat way wandelu saxe wa soxna may mudun wa nga fekk Ablaye tàkko borom jaaji wuli ngara mu ne da nga xamul ne la ma duma xuree sama bay mu jur Fatma Fatma jur Cheikh Mbacke boo ko fi ñu dóor la nga jàll dem kokki fekk fa Amadou Makhtar Bambi Bambi Fatou ciok ak Bambi Coro Yugo ak Bambi Ndamaaw Ndiaye mooy da nga xamul ne man Bambi sama ndey Lat Joor nga ne ko jur Lat Joor mooy latir saaxeer soxna bay Cheikh Mbacke mooma nga fi wax faat ma ndeyam gànkal ma xure ja saaxeer soxna bay nga ne nag négal ma jàll dem Saalum boo yeggee Saalum ku ñu wax ca leela ngena ndaw ngela rek mu deeg fa mbooj ku njéeme joga bar ngay dene fa mbooj boo bëggee wax mooy la jógal foofu bur jokkul si ne sa baay ni man soxlawu ma dara lu dul yàlla ak rasulullah ak roy sama baay xaadimu rasul te dëgg-dëgg bi mu fi jógee sëriñ Cheikh Mbacke loolu la def waaye taawam bi sëriñ Mbacke soxna loo moom itam liggéeyu réerul liggéeyu sëriñ Moustapha Mbacke réerul liggéeyu nit te dëgg-dëgg bàyyi ba Cheikh Fatma asama roqee jërëjëf alaaji man soo alaaji kaani sëriñ Cheikh ni ma ko wax ci njëlbeen yi moo ci ne ab juddoom ci dafa daj réew mi kenn mënu ko wax ba mu jeex waaye kenn ku ne am nga ci wàll sëriñ Cheikh kenn mënu koo jëw ndax léegi moo ko jëwee buur balay dóor loolu taxul mu wax ko jërëjëf Alaaji Asan li taxan moo wax ko ubbee nga ko wax ji sunu mbokk mu ñuy wax Garga Samb ma waxan loolu ndax booba dañoo nekk ci jamono yi chef de canton colonialiste yi nekk fi ñi nga xam ne ñii ñoom lañu jële woon ci réew mi ñu di ay garmi kenn ku nekk sa doom remplacé la ba si ci sëb sëb toll ci jamono jooju mu ne réew mi lu nekk ci senegal fofu nek ba sori di bëgg jëw señ Cheikh mbacké borom réew may jog dóorlu la bo démé tay fouta nga taxaw di bëgg jëw señ Cheikh mbacké amul maktar waan ca Mbumba moo lay wax né xana da nga xamul ne gañ siiri sama ndey ak dankal ma xuree jëf seen day demal teñ biram Fatma te Cheikh Mbacke itam Fatma gànkal ma xuree jë demal teñ biram Fatma. nu mu dool maam ma ca mumba gan si yaayam sidi ma ca Tuuba gàncax yi yaayam dem yen doo doo bir ma yen du fa yen doo naan yow almaami ba cem numba defa almami mamado rabi almami mamado jawel almami mamado ma sambal man mamado seyna bo amadu yela sasor fal mokli ko ngo e ndaw baab li ngeri mo jul agru seyna bu bi dal ndax dakhe garmi ni da da na ndo ba wala na yaw na so ya mo da jërëjëf Samba ne boo jàllee nag dem Jolof da fay wax fekk fa Sidi Gansiri moo ko man Maxtaar Wan ñoo bokk weenu Gansiri wa Gansiri ma xuree ja demal sëñ Biram Faatma Cheikh Mbacke it Faatma Amadou ma xuree ja demal sëñ Biram Faatma nga jàll fekk fa buuna ma jigéen ndaw mu ne da ngaa xamul ne Alburi ma jur te Saynabu Amadou Yalla Saxar Fatma te Cheikh Mbacke Fatma ndeyam gankal Amadou Makhoureja Saxar Soxna May Saxar Fatma nga wacc ñew lu ba bo duggé nar ñom rek fekk Cheikh Tako mom Tako jaw murgel jojo ko du yasin bi ge degen fara degen fara ak bige fara seen bopp lay ca kuma biige ak mali kuma biige ak biram fadim biige ñooñu maa ngone seen bàyyi maa ngone demal seen ma ko du kuma jaari ko du kuma ak kuma jaari demal seen la sukaabe borom paxa dënga waay mbu sama ma ko doon tamaat maawa jëndalaaka ya ma ca jaxaaw bi mu faat ma ci bu bu nguraat maawa ma ko kuma jaari cheikh faat ma way wandeelu saaxewa soxna mbay mu dun saaxewa saaxewa kuy gaynde faam ma dem na nii la di ma juwa muy loolu duy nga fekk Ablaye Tako borom jaaji wuli ngara mu ne da nga xamul ne dankal ma duma ko reje sama baay mu jur Fatma Fatma jur Cheikh Mbacke boo ko fi waxee ñu dóor la nga jàll dem kokki fekk fa Amadou Makhtar Bambi bambi Fatou Diop ak bambi Coro Yuba ak bambi Ndamaaw Njaay mooy da nga ne man bambi sama ndey Lat Joor Ngoone Latiir ko jur Lat Joor Ngoone bay Cheikh Mbacke mooma nga fi wax Fatma ndeyam gànkal maxure ja saxar soxna bay nga ne nag nagal ma jàll dem Saalum boo yeggee Saalum ku ñu wax ca ndeela ngeen ndaw ngeen rek mu leeg fa mbooj njàng ko njéemee joga par ngay ndeene fa mbooj boo bëggee wax mooy la jógal foofu bu jokkul ci ne sa baay calaw maa demal sëñ biram fa nga jóge ko delu si biir bawal nag jërëjëf Alaaji Kaani loolu boo ko waxee la nga ci xam mën na koo jeexal sëriñ Cheikh ci boppam daf maa waxoon ni boo bëggee sa xam-xam rafet koo xam bàyyam xamal ndeyam loolu mooy rafetal xam-xam ma indi nag ni mu ci mu ci maam maaram ci wàllu euh, geño te ma wax ni garmik wégéej la mu bëgg a rek wax ni mu jur demee ci wégéej ji soo ko delloo kàddu gi alaaji maada ndax ma ak ma ak ma kura kon nag maanaam doyee géey moom gën kani malik dañ joxe njaajaan njaay moom sa geet njaajaan ak sari njaajaan geet njaajaan di ku ñu wax ndàmbaaw njaay ñu ko gomag njaay layti moom ca maaramub gomak bu sitoxub gomak ak merib gomak maaramub gomak mu ñu ko jox kulosaar maaramub gomak kulosaar gomak ko jox maram mu jur ko ñu wax maram doye siise maram doye siise jur ko ñu wax astatam astatam jox ko ñu wax alet kuramaam maam sa kuramaam alet kuramaam alet jur ko ñu wax faali siise kuramaam faali siise kuramaam ñu dénk ko ñu wax maa dem ba biige dagge jëleen maam sa kumba samb kumba samb ñu jox ko amal xule jël ñoo la maam ca ma jigéen taal ma jigéen taal jox ko ñu wax mu tufala mbaan turé ca Makka maam ca mbéru kuréel turé ma jigéen taal mbéru kuréel turé ma jigéen taal jox ko ñuy ca mbéru jeng mbéru ñu jox ko amalu ca yàlla mbéru yàlla mbéru ak joor mbéru ak roxee mbéru ak fatimata mbéru ñu jox mënu Fatma sëy sangam ba mam sama taal xoyee ci am ne soxna wa cit soxna wa cit ñu def ko gànkal Amadou Makhourédia moom Saxeer Soxna Mbay Mamadou Saxeer moom Saxeer Fatma mam Sëriñ Momar Wacit ak Madoun Samba ak so càmmiñ ñooy càmmiñ Soxna Fatma Soxna Fatma ñëwaat ci Cheikh Moustapha Amirul Moominiina ante gaynde Fatma sëñ Cheikh Amadou Mbacke tem ne soxna xarit ak su Mbacke su mel ma loolu laa ci génne ndax sëñ Cheikh liñ ci wax liñ ci mën a wax du jeex waaye alaaji Maada waxtaan bi damay ko fekkee ci ku mel ne sëñ Cheikh am nga ci war a wax xaaj Assane maa ngi lay gërëm yàgg naa fi lool waaye tey laa ma sa fekkee fu ñuy waxtaanee senegal démb ci émission bu rajo bi sos ca alu ba ci yow am naa ci mbégte ci dégg yi ni nga waxee am mbégte dégg ni Alaaji Mansour waxee muy témoignage historique te dama dégg gi wali di wax ne tout ce que la naissance peut révéler se manifeste aux habitudes loolu du réer rek ci juddu fay ci jikko kon Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma juddoom rafet na jikko wane na ko te fi mu juddoo ci ndey juddu ko ci bàyyi ak maam nga xam ne bu noonu nañ def rek nguur mu falu buur mbaa mu toppa wilaaya mu bàyyi fa loolu lépp nag dem jàngi jàng googu nag ci lay insister ku jàng xam ku xam am te am man te ku man mën a calal say bokk am naa ci te témoignage bu rafet mas leen koo fekki fekk mu feebar ñuy dem mu dabuwaat ñu calal ñu yéen ñëpp ngeen fekk ko loolu kenn du ko fàtte te it ku bëggoon yëre yu weex la kon sagesse la amee woon jikko ju rafet la amee woon dëkk wu ma sa tukki fu mu fanaan moo ko moom te lu ma sa rekk a dépensé ma ne ki mu fi bàyyi tey di taawam yàlla ko yàlla may kattan ak wërsëg bu mu uusoo bàyyam moo ki rakkam jërëjëf Alaaji Maada Alaaji Jaale Baata yow sëriñ si dégguloo ko da nga koo xam ndax sa xarit danga ko reeloo sax ci kanam kon waxtaan wi am nga ci wàll alal yàlla baat asal waxtaan wi daanaka da nga doon waxalaat ñun ñëpp yaa ngi man soor ndax lu baax la ñu xam ci sëñ si moom ngeen wax te lu baax bu yàquwul dara mënu ko dara dara mënu caa di xamaa naa ne daal ku amoon laa la ku amoon fulla la ku amoon fit la ku gëmoon yàlla la xam naa it ni ku amoon xam-xam la ku dimbali àdduna yëpp la koo xam ne mu sa wéeru fu dul ci baayam képp ak maamam képp ak rasul lay képp ma ta ku ñëpp weegoon la ku gàttu làmmeñ la ku gàttu ab ku bari woon jëf ku bari njariñ bari njariñam a ngi bi fi jógee nag war na ko ndax ala ko di sa yëf neexee muy du man de Ousmane boo fi jógee doo fay mooy man sëñ Cheikh bii fi nekk di ko wax mu du man de sëñ Moustapha boo fi jógee man doo fi bàyyi a bi fi bàyyee nag Mbacke Sow di ko cas yóbbu ko foo ko bëggee yóbbu te doo yàqu kon taaw bu baax mat nay wut boo ko bëggee da nga wut nay ju baax wuti jabar ju baax am ci sa doom ku jël sa ku takk jabar am sa doom ku am am sa na matal ba ba ba mu remplacé ba bàyyam ba mu demee kenn jooy nañu nga nax ko waaye mu daan def def na ko dubleel ko bi mu fi jógee doom ju baax ji ñuy wax sa Mbacke Sow loolu koy def kon jërëjëf Mbacke balay si bëgg jërëjëf alaaji Ali Bata kon alaaji Mor Dior ci sëriñ Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma waaw ndeysaan dagi tugal mu ñu tàbbal ci biir wilaya kooku mooy gaynde Fatma mooy koo xam ni foo ko tuddee ñëpp ni est nga ni ko kenn ku ci ne xam ci moom boo ko waxee xaju ci mission dégg ngeen jilee mat saxiir sang bu tedd ba ñu ngi jooy moom it noppeeguñ dafa ne woon sëñ Cheikh day xama waaye fii mu bàyyi ko day bàyyi fi koo gën kon nag sëñ Cheikh Mbacke mii yàlla ci barke nit koo xam ne ki ba nga demee ba léegi fu waay toll sa baax gi ñu di ko wax fooy toll sa mat ga ñu di ko wax moo matoon juddu ba rafet góor ga rafet diine ja rafet moom daal moo mel moo sotti woon moo doon ko waaye nag yàlla dimbale na ko mu bàyyi fi taw bu gàlliwu kon yàlla yàlla tax ci barkeem taw bu gàlliwu la waaye mu fi dootul jóg mukk kooku mooy moom la ñuy waxtaane tey asama jërëjëf alaaji Mor Dior alaaji Makura kuy Sénégal rek mën nga wax sëñ Cheikh dara rawatina nag ab jëwal kon nag alaaji Makura ma ko kitaabe Bakary maam nga ne ko waxal ci Cheikh Fatma bu xajoon ci waxtaan dinaa jox lu bari ndax bàyyi Moustapha Mbacké bàyyam mas naa may saam ci kitaabe Bakary maam aw naa gum ci ko laaj naa dimb tey taxul dimba tax gay de Fatma moomu dégg naa kan lim ay buur yu bari yoo xam ne mbokkam lañu kon bu yaaba Bakary maam nekk ci Fandine di sëgoo dine Bakary maam ndeyam amin te saa xewal Fatma yaaba Bakary maam ay xarimam maam aminta xari ñu bokk ndey te ñu bay ki bàyyam sey Cheikh Fatma mo ngeen nekk tay ñu ba lu ba rek mo nga bokal Cheikh moomu gaynde Fatma boo demee Tuba bo ne gaynde rek sa xel ñëpp ak ñëpp ci Cheikh sëñ Cheikh rek la xel ñëpp daal do xol ci yaba xarimam maam xarimam xari maam aminta xari maam dem Fandeen bàyyi ko ca Fuuta ñu ko tëggal dandi mu toog fandiin ñu boole ko fas yu bari xarimaam suñ ko ko njëge yi si jiy mu du faa xujja matar ndumbe sàmb ayib matar ndumbe jàng juróom-benn fukki jàng juróom-benn fukki jàng juróom-benn jàng jërëjëf Alaaji ah, Makounda waxtu waa ngi jeex dañoo ah, joxoon ci waxtu waa ngi jeex ah, mbokk yi ñuy déglu loolu lañ doon waxtaan ci sëñ si Amadou Mbacke ñu ngi déglu ñëpp xam nañu kenn mënu ko jeexal sama témoignage rek benn témoignage mooy bu Alaaji Abdoul Aziz mu fonkoon ko lool Serigne Cheikh Fatma ànd naa ak moom ci oto jóge avenue président Lamine Gueye maa ngi El Hadj Abdoulaye maa ngi ci kanamu oto bi nu romb këram gi ci Colobane mu ne xaw ma ne ku ko gën fii waaye yomb a xaw ma ku ko gën fii de am noonu kenn ku ko fi gën xaw ma ne yomb a xiyaamati ni kookoy Serigne Cheikh Fatma ak beneen témoignage bu Lamine Gueye bi mu nekkee secrétaire d'État au gouvernement Oumar Jean Deleon Blum dafa ne bëgg naa Sénégal yëpp de waaye Serigne Cheikh Fatma ci raw. El Hadj Assane Morokhaya ah, mbir mi nga xam ni mooy waxtaanu mag wi jëm seen Cheikh Mbakke waxtaan la woo xam ni am na njëriñ ci mag am na njariñ ci ndaw ndax li ko def moo di seen Cheikh Mbakke dafa amoon jikko joo xam ni sama borom ko defoon ci moom muy jikkoy royukaay ndax nit la woon koo xam ni tabarkàlla ko yàlla mayoon xam-xam la te xam-xamam da koo jëriñe waa réew mi jëriñe ko waa duna ndax xale yi nga xam ni jàngal na leen ñu génn ci école yi nga xam ni moom la liggéey ci biir réew mi bari na ci ay cadre lool te loolu mooy li am njariñ digganteem nag ak mbiddaa fon yi jëfam ci seen biir loolu moom kenn magu ci kenn ku nekk xam na ko waaye nag ku Modou Moussa Mbacké di sa baay di taawu Xaadimu Rasuul Fatma Cubb di sa waay jur gànkal ma dama xuree ji jur ko boo melee ni sëñ Cheikh kenn du laaj lu tax nit la koo xam ni tubaarkàlla ku sama borom baaxaloon la te liggéeykat la woon boo xam ne bii lu mu mës liggéey ci biir réew mi la ko def lu mu mës a liggéey njëriñam réew mi koy jëriñoo kon nag du nu mën lu may émission bu day nii bu taxawee tey ñu mën ci wax sunu xalaat mën naa laa jablay naar sàmbali bari naa lu ma ci xam ci mbir mi nga xam ni mooy kilifa gu tedd googule di gaynde Fatma di sëñ Cheikh Mbacké waaye nag noonu la war a mel tubarkalla ñi mu jurit noonu la ñu mel ñi mu yarit noonu la ñu mel ku yor jikkoom day fu ne dëgg fa mën a dem da nga mën a wax ak ku nekk te itam doo fay sa bopp te kenn du la yàpp kon nag asal ma roq ya loolu laa amoon lu may sànni ci mbirum euh, gaynde Fatma di Cheikh Mbacké Ah, mbokk yi day déglu loolu mooy waxtaan sëñ Cheikh Amadou Mbacke mi doon waxtaane sëñ Cheikh nag mooy mbokkum ñëpp boo gisee ma tudd nag taawam boobu mooy sëñ Mbacke soxna loo ñi ma jur ñëpp xam naa leen di ñëpp mbokkam lañu waaye boo tuddee sëñ Mbacke tudd nga ñëpp ndax ñëpp ay rakam lañu te xaritam lañu amu ci kenn ku ma amal euh, xaar ma yàlla ñëpp mbokkam lañu xaritam lañu ñu bokk benn baay kon nag boo tuddee sëñ Mbacke rek tudd nga ñëpp kon nag mbokk yi ñuy déglu loolu leen wax tey sëñ Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma euh, ngeen di ko déglu dimanche ju jot ci waxtu ñu ko wax Sénégal démb ñu nekkoon ci waxtaan ci alaaji sàmba jabare sàmb yàlla ak rasulullah ak roy sama baay xaadim rasul te dëgg-dëgg bi mu fi jógee sëriñ Cheikh la def waaye taawam bi sëriñ Mbacke soxna loo moom itam liggéeyu réerul liggéeyu sëriñ Moustapha Mbacke réerul liggéeyu nit te alaaji Kaani sëriñ Cheikh ni ma ko wax ci njëlbeen gi moo ci ne ab juddoom ci dafa daj réew mi kenn mënu ko wax ba mu jeex waaye kenn ku ne am nga ci wàll kon nag am na sunu mbokk mu mas a ni sëriñ sih kenn mënu koo jëw ndax léegi moo ko jëwee buur balay dóor loolu taxoon mu wax ko nga ko wax ji sunu mbokk mu ñuy wax darja sambu ma waxan loolu ndax booba dañoo nekk ci yamono yi chef de canton colonialiste yi nekk fi ñi nga xam ne ñii ñoom lañ jëlee woon ci réew mi ñu di ay garmi kenn ku nekk sa doom remplacé la ba si ci sëb sëb toll ci jamono jooju mu ne réew mii nu nekk ci Sénégal foofu nekk ba sori di bëgg a jëw sëñ Cheikh Mbacké borom réew maay jóg dóorlu la boo demee tey Fuuta nga taxaw di bëgg a jëw sëñ Cheikh Mbacke amoon Maxtaar Wan ca Mbumba moo lay wax ne xanaa da nga ne dañ siri sama ndey ak gànkal ma seen ndey demal teñ biram Fatma te Cheikh Mbacke itam Fatma ma ko lay jëf demal teñ biram Fatma. ko daan jël mu ma dool maami ma ca mbumba gan si ree yaayam sidi ma ca tuuba gan si ree yaayam doon yendoo doo bir ma yendu fa yendoo naan yow almaami ba cam numba defa almaami mamadou rabi almaami mamadou jaawel almaami mamadou maar samba almaami mamadou yow Seynabo Amadou yàlla saafoor faal ma kuli koot ngooy ndaw baab li ngeeri moo jur albiri Seynabu seedi daan dax garmi yi jërëjëf Samba ne boo jàllee nag dem Jolof da nga fay wax tekk fa Sidi Gañ Siri moo ko man Maxtaar Waan ñoo bokk weenu Gañ Siri wa Gañ Siri ma xuree ja demal sëñ Biram Faat Cheikh Mbacke it Fatma Amadou ma xuree ja demal sëñ Biram Faat nga jàll fekk fa bu na ma jigéen ndaw mooy da ngaa xamul ne alburi say na boo ma jur te say na boo amadu yàlla saxaar Fatma te Cheikh Mbacke Fatma ndeyam gànkal amadu ma xule ja saxaar soxna Mbay saxaar Fatma nga wàcc ñëw Louga boo duggee naar ñoom rek fekk Cheikh Tako mom takko jawmurgel jojo ko do yasin bige degen fara degen fara ak bige fara sen mbokk lay ci kuma bige mali kuma bige ak biram fadim bige ñoo ma ngone sen bay ma ngone dama sen ko kuma jari ko kuma ngene kuma jari dama sen sukabe borom faxa de nga way mbata bas ma ko do tamo ma jendela ka ma je jagaw bi mu garam ma ci bu mu ngran ma ko kuma jari cheikh fat ma way wandelu saxewal soxna mbay mudum saxew saxewal faatma muy gaynde faatma dem na ni la muy loolu doy nga fekk ablay takko borom jaaji wuli ngara mu ne da nga xamul ne gankal ma duma xuree sama bay mu jur fatma fatma jur cheikh mbake boo ko fi waxee ñu dóor la nga jàll dem kokki fekk fa Amadou Makhtar Bambi Bambi Fatou Diop ak Bambi Coro yi ak Bambi Ndamaaw Ndiaye mooy dangaa xamul ne man Bambi sama ndey Lat Joor Ngoone Latiir ko jur Lat Joor Ngoone Latiir mooma nga fi wax Fatma ndeyam gànkal ma ko rëcc saaxewer soxna nga ne nag nagal ma jàll dem Saalum boo yeggee Saalum ku ñu wax ca ndeela ngena ndaw ngena rek mu leeg fa mbooj njàng ku njéeme jogal par ngay ndeene fa mbooj boo bëggee wax mooy la jogal foofu bur jokkul si ne sa calaw ma biram fa nga dellu si biir bawal nag jërëjëf Alaaji Kaani loolu boo ko waxee li nga ci xam mënoo ko jeexal sëriñ Cheikh ci boppam daf maa waxoon ni boo bëggee si xam-xam rafet koo xam bàyyam xamal ndeyam loolu mooy rafetal xam-xam ma indi nag ni mu ci mu sëtoo ci maam maaram ci wàllu euh, geño te ma wax ne garmi wégéej la mu bëgg a rek wax ne mu demee ci wégéej yi soo ko delloo kàddu gi Alaaji Maada ndax ma ak ma ak ma kura kon nag maanaam Doyo Guèye moom gën Kani Malick dañ jox Njaajaan Njaay moom ca Geet Njaajaan ak Sari Njaajaan genn njaay daan di ku ñu wax ndambaaw njaay ñu jox ko gomak njaay layti moom ca maramab gomak ak sitoxub gomak ak merib gomak maramab gomak mu di ku ñu wax kuro saar maramab gomak kuro saar maramab gomak yu ku ñu wax maram alsini mu di ku ñu wax doye siise marami doye siise di ku ñu wax astatam astatam jox ko ñu alet kuramaam maam sa kuramaam alet kuramaam alet di ku ñu wax faali siise maam sa kumba sàmb Kumba Samb ñu jox ko amal xule dén ñoo la jàng ca ma jigéen taal ma jigéen taal jox ko mu tufala mbaan turé ca Makka maam ca mbéru kulo turé ma jigéen taal mbéru kulo turé ma jigéen taal jox ko ñuy wax ma daxu jo tuddéel maam ca mbéru jàng mbéru ñu jox ko ak joor mbéru ak roxay mbéru ak fatimata mbéru roqee mbéyu njox ku ñuy wax madu faat ma sëy sàngom ba mam sama taa roqee ci am ne soxna waccit soxna waccit ñu def ko gànkal Amadou Maxure jë moom saaxeer soxna mbay Mamadou saaxeer moom saaxeer Fatma mam sëñ Momar waccit ak Madoune Samba ak so càmmi ñoo ñooy càmmi soxna Fatma soxna Fatma ci Cheikh Moustapha amirul moom ñu am sa gaynde Fatma sëñ Cheikh Amadou Mbacke càmmiñam soxna Xadi ak Asu Mbacke su mel ma loolu laa ci ndax sëñ Cheikh liñ ci wax liñ ci mën a wax du jeex waaye alaaji Maada waxtaan wi damay ko fekkee ci ku mel ne sëñ Cheikh am nga jël war a wax xaaral Assane maa ngi lay gërëm yàgg naa fi loolu waaye tey laa ma sa fekkee fu ñu waxtaanee Sénégal démb ci émission bu rajo bi sos ca alu ba ci yow am naa ci mbégte ci dégg it ni nga waxee am mbégte dégg ni El Hadj Mansour waxee muy témoignage historique te dama dégg géwél di wax ne tout ce que la naissance peut révéler mhm. se manifeste aux habitudes lu lu réer rek ci juddu fay ci jikko kon sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma juddoom rafet na jikkoom wane na ko te fi mu juddoo ci ndey juddu ko ciy bàyyi ak i maam nga xam ne buñ noonu nañ def rek nguur mu falu buur mbaa mu toppa wilaya mu bàyyi fa loolu lépp nag dem jàngi jàng googu nag ci lay insister ku jàng xam ku xam am te ku am man te ku mën a calal say bokk am na ci moom te bayaas bu rafet mas leen koo fekki fekk mu feebar ñuy dem mu dabuwaat ñu taral ñu yéen ñëpp ngeen fekk ko loolu kenn du ko fàtte te it ku bëggoon yu weex na kon sagesse la amee woon jikko ju rafet la woon dëkk wu ma sa tukki fu mu fanaan moo ko moom te lu ma sa nekk dépense am la ma ne ki mu fi bàyyi tey di taawam yàlla ko yàlla may kàttan ak wërsëg ku mu uusoo bàyyam moo ki rakk jërëjëf Alaaji Maada Alaaji Baata yow sëriñ si dégguloo ko da koo xam ndax sa xarit danga ko reeloo sax ci sama kanam kon waxtaan wi am nga ci wàll ala jaali baat asal waxtaan wi daanaka da nga doon waxaraat yéen ñëpp yaag man suur ndax lu baax la ñu xam ci sëñ Cheikh moom ngeen wax te lu baax bu yàquwul dara mënu ko dara mënu caate li moo di xamoon naa daal ku amoon laa biir la amoon fulla la ko amoon fit la ku gëmoon yàlla la xam naa it ni ku amoon xam-xam la ko dimbali àdduna yëpp la koo xam ne mu sa wéeru fu dul ci baayam képp ak maamam képp ak rasulullah képp ma da wéeru ni da waxee ku ñëpp la ku gàttu làmmeñ la ku gàtt ab ku bari woon jëf la ku bari njariñ la bari njariñam a ngi fi bi fi jógee nag ko ndax ala sisage maa ngi ko ni sa yëf yi muy du man de Ousmane boo fi jógee doo fay mooy man sëñ Cheikh bii fi nekk dañ wax mu ni du man de sëñ Moustapha boo fi jógee man doo bàyyi man a bi mu fi te dara yàqu kon taaw bu baax mat nay wut boo ko bëggee da nga wut nay ju baax wuti jabar ju baax am ci sa doom ku jur sa ku jabar am sa doom ku am sa doom kon sëriñ Cheikh matoon na ba ba ba mu remplacé ba bàyyam ba mu demee kenn jooy nañ nga nax ko waaye lu mu daan def def na ko dubleel ko di nga fi jógee doom ju baax yi ñuy wax sa mbàkke soxna loo ñu ngi koy def kon jërëjëf mbàkke balay si bëri jërëjëf alaaji Ali Bata dëgg tugaan moom tabal ci biir wilaaya kooku mooy gaynde Fatma mooy koo xam ni foo tuddee ñëpp ni est-ce que dégg kenn ku ci ne xam ci moom boo ko waxee xaju ci émission dégg ngeen jilee mat saxiir sang bu tedd ba ñu koy jooy moom it noppeeguñ dafa ne woon sëñ Cheikh day xam fa mu jëm waaye fii mu bàyyi ko day bàyyi fi koo gën kon nag sëñ Cheikh Mbacke mii yàlla tax ci barke nit koo xam ne kii ba nga demee ba léegi fu waay sa baax ñu di ko wax fooy tol sa mat ga ñu di ko wax moo matoon juddu ba rafet góor ga rafet diine ja rafet moom daal moo mel moo sotti woon moo doon ko waaye nag yàlla dimbali na ko mu bàyyi fi taw bu gàlliw kon yàlla yàlla taf ci barkeem taw bu gàlliw la ko waaye mu fi dootul jóg mukk kooku mooy gaynde Fatma moom la ñuy waxtaane tey asma jërëjëf alaaji Mor Dior alaaji Makura kuy Sénégal rek mën nga am sëñ Cheikh dara rawati nag ab jëwal kon nag alaaji Makura ci sëñ Cheikh wax nga dëgg wax bu rëy nga wax kon boo nee Makura su mbay daa mbay ci gën a ba maam nga ne ko waxal ci Cheikh Fatma boo ko jot ci waxtaan dinaa jox lu bari ndax bàyyi Moustapha Mbacke bàyyam mas naa may saam ci gën a ba maam aw naa gum si da ko laaj naa dim tey taxul dim ba tax gay di Fatma moomu dégg naa kañ lim ay buur yu bari yoo xam ne mbokkam lañu kon bu yaaba xarimaam nekk ci Fandine di sëgoo di xarimaam ndeyam amin te saaxal Fatma yaaba xarimaam ali kharimam maam aminte xari ñu bokk ndey bokku ñu bay ki bayam sëñ Cheikh Fatma mo ngeen nekk tey ku fi baax ku fi baax rek moom nga bokkal Cheikh moomu bo di na tuba bo ne nee gaynde rek sa ñëpp ak ñëpp ci Cheikh ak Cheikh rek la xel ñëpp lay